asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ah, di leen dalal jàmm ci sama chaîne YouTube bi ah, dafa am ku ma laajte posé ma benn question ma bëgg cee tontu ba leen jàppale dimbali ñëpp dimbaliwaale ko moom itam xam nga WhatsApp dafa nekk loo xamante ne lu baax la nag wante léeg-léeg mu indi ay coow ci diggante ay nit. nit ki su la envoyé message ba nga jot ko moom day xam ne jot nga ko da koy xam ba pare su ko defee boo tontuwul nag wala nga yéex a tontu am na nu mu koy gisee ba seen diggante mën naa ñagas léegi nag am na ku ma laaj nag est-ce que pexe am na man ne ko waaw pexe am na moo tax ma defar vidéo bi nag pour wal leen pexe bi fan la léegi WhatsApp boo ci envoyé par exemple vocal message vocal boo koy en ah, boo ko boo ko waxee ba pare nga koy envoyé bu fekkee demagul nii lay mel gis nga lii boo gisee ci sa message rek amal message bi demagul ñett la mën a nekk nag mën na am sa connexion moo jeex mën na am sa réseau moo xaw a yéex mën na am aussi message bi nga envoyé moo diis léegi nag su dee message bi demee nag message bi su demee nii lay mel lii mooy sa message bi yow envoyé nga ko kon yow ci sa côté pare nga ci envoyé nga message bi mais nag bu mel leen nii bu mel leen nii envoyé nga ko waaye borom jotagu ko léegi nag boo gisee ñaari tomb yu ñuul yi moo wane ni nit ki de jot na sa message bi wante gisagu xool wante liiragu ko maanaam message bi egg na ci téléphone bi wante moom si boppam liiragu ko fekkee vocal la jot na ko waaye dégloogu ko li bu fekkee dafa mel ni nag mu bëla ñaari tere yi bëla moo wane ne nag whatsapp mu ngi lay wax ne ah diw de mi nga envoyé message vocal jot na ko ba liir na ko foofu nag mooy coow li man envoyé naa message whatsapp ne ma ki nga envoyé message jot na ko ba liir na ko wante man toog na ab diir tontuwul toog na ay fan tontuwul wala tontuwul ba faw sax ah ma ne lu xew lu xew xam nga loolu dafa neexul ci xol nit ki mën nga ci mer wala boo ngay laajte ci sa bopp lu waral tontuwul lan moo xew moo waral nag te ñu ne leen nag am nañ solution solution bi mooy dañuy fexe ba ki la envoyé message du xam ne liir nga wala liiruloo parce que bu ko xamee rek fa la coow li commencé mais bu ko xamul leen ah xam naa xamu ko gisagul message bi moo tax amewul connexion léegi nag nuñ koy defee loolu téléphone sa téléphone bi ngay ubbi nga dem whatsapp gis nga icône whatsapp baa ngi nii léegi boo ubbee whatsapp bi ci li ngay daanu li ngay njëkk a gis léegi nag ñetti tomb yi ñetti tomb yi nekk fii nii nii nii ci kaw ci sa ndeyjoor moom ngay bës boo ko bësee mu indi la lii nga jël li ci suuf li ñuy wax paramètre nga bës ci paramètre boobu boo ko bësee mu indi la lii nga xamante ne sa photo baa ngi ci ak lépp léegi fi caabi bi nag caabi bi fi mu nekk ñu koy wax compte wala moo compte ci yeneen téléphone yi boo ci bësee mu indi la beneen encore fenêtre fenêtre bi aussi nga ñëw bës ci cadenas bi cadenas bi mooy confidentialité ok maanaam secret léegi nag boo bësee ci confidentialité nag mu ubbil la fii nag fii la mbir mi nekk nag gis nga lii nii nii lii lii mooy tax képp ko képp ku la envoyé message ba nga jot ko moom day xam ne yow jot nga ko muy xaatantu nag fa la coow li nekk léegi nag lii moom ngay décoché maanaam maanaam da nga ciy bës boo ci bësee dootul dootul bëla comme ni mu bëla nii comme ni mu veeree nii nii nii nii nii gis nga ni mu leeree nii nag en couleur moo wane ni képp ku la envoyé message boo ko liiree mu xam ne diw liir na sama message yaa ngi dégg boo ko liiru aussi Mouhamed yow liiru ko léegi nag boo bañee coow am na da nga koy désactiver maanaam da nga ciy bës mu deñ léegi bu deñee nag moom du xam ne liir nga ko kon su ko defee yow mën nga toog ay ay ay waxtu mën nga toog ay mit mën nga toog ay fan sa doo ko tontu te du xam li xew moom day yaakaar ne rek gisaguloo ko su ko defee jàmm ne ñooy waaw yaakaar nag tontu bi leer na ku ci amaat yeneen yeneen laaj mën nga ma ko laaj bu You try to stay strong and fake a smile I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray